barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan sirri bai bara ina woni allah moma amalin girma jang damu damu sidi ma boye kon gaji sankunyo sidi baraham sidi baraham nyas sidi baraham sidi baraham gamlen neki ay miram dunen sidi baraham sidi baraham nyas sidi baraham sidi baraham gamlen neki ay miram dufo يمنيو معتقد bëgg la rekk yow ne moo ñu war Sidi Barahama sa mbëggeel ci yónneen bi yem nañu moo taxit bàyyi bëgg la rekk yow ne moo ñu war ndax li ñu xamal li ñu defal yow bàyyi Baraham di la way yow di la gaañe rekk yow ne moo ñu war ndax li ñu xamal li ñu defal yow bàyyi Baraham di la way yow di la gaañe rekk yow ne moo ñu war bàyyi ne taalibe yi def na benn leetar boo xam ne bàyyi leen ko bind Ibrahim Mahmoud mii dana leen ko jàngal léegi. mu ne na loolu def na liggéey boo xam ne mi ngi ñu koy sant ndem neex na leen bu xëlëgee ñu dajale ko suuf fii ci buntu jumaa ji. suuf soo xam ne dana mottali li def ci liggéey bi neex na leen kay. jumaa ji. mu ne jumaa ji. ñoo ko fi bokkal sos ñu ne yéen. ñoo ko fi bokkal sos ñu ne neen. ñu ne yéen. ñu ne yéen. dama si fii moo si. kenn mos a xalaat dimbali ñu ci. kenn mos a xalaat dimbali ñu ci. gouvernement bii fi nekk léegi. gouvernement bii fi nekk léegi. defal nañu ci ndimbal. defal nañu ci ndimbal. lebal nañu. lebal nañu. war naa mottali genn wàll ak li des ci liggéey bi. loo xam ne war naa mottali genn wàll ak li des ci liggéey bi. li ci des bor boobu man gàddu naa ko fay. li ci des bor boobu bàyyi gàddu na ko moom dana ko fay. li ci des nag yéen yéen la war. li ci des nag yen la war. ne rek ko doon def léegi am nañ ci ndimbal. ñun rek ko doon def am na ci ndimbal. maa ngi koy ay ay entrepreneur waaye bëgg nañu dajale leen suuf soo xam ne dana doy liggéey bi yëpp. waaye bëgg nañu dajale leen suuf soo xam ne dana doy liggéey bi yëpp. xeer. xeer. yàlla may nañu ko ca Taïba. yàlla may nañu ko ca Taïba. jënd na ñaari camion. jënd na ñaari camion. yoo xam ne lépp lu soxla ci xeet lañ ko roñi nii. kon. kon nag. li ñu gouvernement bi lebal. li ñu gouvernement bi lebal. ñu boole ko suñu ñaq. ñu boole ko suñu ñaq. gouvernement bi lebal mën naa fay ñu defal liggéey bi des ci liggéey bi. li ñu gouvernement bi lebal mën naa fay li defal li ñu la def ci liggéey bi. li ci des ñun lañ ko liggéeyal suñu bopp. li ci des nag ñun lañ ko liggéeyal suñu bopp. ndax suñu liggéey la. ndax suñu liggéey la. fokk bi nag mooy ëllëg suuf si daal na tolloog tabaxam jàkk ji. mu ne ëllëg daal suuf si ñuy jël fii ci buntu jàkk ji na tolloog terrasse ba lépp. bu jant sooyee te tolloo dama daal ñu dolli ci digal ji. mu ne bu jant bi sooyee تجلسونه تذكره بين تدل دميجي xam ci na jayit bi bàyyi na ndax neex na leen bàyyi na liggéeyal sëriñ Bay na liggéeyal sëriñ sakkaa ci yàlla sakkaa ci yàlla ku ko xeeb ku ko xeeb daal jégoo julli yow bu fekkee julli dara lu may ay yëngatu bu fekkee julli du dara lu may ay yëngatu di yëgal jaam ci yàlla di xeebal jaam bi ca yàlla. ku xeeb liggéeyal yàlla. kon kay ku xeeb liggéeyal yàlla. kon dégguloo julli. yow de kon déggoo julli. ma ne ba ñu tabax jàkka ji Madina. mu ne ba ñu tabax jàkka ji ca Madinatu Munawara. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon yenu. yonent bi sallallahu alayhi wa daf doon yenu. عمر بن الخطاب دفن ينو عثمان بن عفان دفن ينو علي بن ابي طالب دفن ينو فاطمة بنت رسول دينو فاطمة بنت عائشة بنت صديق دينو حفصة بنت عمر دينو حفصة كان ويسود انا كي لغي بجاك كون كي كان ويسود كي لغي بجاك خنا كو جامع يالا خنا كو خامني su dee foor ñee ñu gën a foor su dee foor rek la ñoo ñoo gën a foor ñëpp su dee mag ñu gën a mag ñëpp su dee mag ñoo ñoo gën a mag ñëpp su dee jigéen ñu gën a tedd ci jigéen yi àddina ko su dee jigéen ñooñu ñu leen tudd ñoo gën a tedd ci mboolem jigéen yi àddina bu subaa ñun ñëpp na yenu bàyyi na bu subaa ñun ñëpp na yenu ñu soxla ci suuf daal ñu soxla ci suuf daal benn tubaab dana fi ñëw altine na fi fekk jël bu ko yem te bu ko fi oto yi yal na yàlla fayante yéen nag. yal na yàlla fayante ñun nag. yéen a ngi sallallahu alayhi wa sallam. yéen a ngi wax ne sallallahu alayhi wa sallam. tabax si jàkka lu toll nii gàmbab petax. ku tabax si jàkka lu toll nii gàmbab petax. gàmbab tipirip mooy picc mi gën a tuuti. gàmbab tipirip mooy picc mi gën a tuuti. yàlla tabaxal la néeg fa moom ci aljanna. yàlla tabaxal la néeg fa moom ci aljanna. नेकमो नेकमो नक चार जन केहल जन दुनिया चार जन रख दे दौल नेक रख के केहल जन जन लंग बे बुबा नेकमो जन नेकमो जन सब के चार जन सब के हम नेकमो चार जन नमी ने खाना सब के हम नेकमो चार जन नमी ने है सेतर रख सेतर रख वक्त ने खाने से कल चलना बदरने वजलमा याला वक्त ने से कल बिसल बदरने कुछ लमा याला da nga ne fii ci àddina da nga nekk nag fii ci àddina seetal ne boobu ni mu neexee seetal ne boobu ni mu neexee yow ba mu nekkee fa yàlla ba mu nekkee fa yàlla te muy ci àddina te muy fii ci àddina kat kon nag neex fa moom ci àljana dana neex kon kay neex fa moom ci àljana ku ne xam na ne neex na ba dee yàlla leen yàlla may neex fa moom ci àljana yàlla yàlla may neex fa moom ci àljana kenn ñàkk a am ay gaali suuf yu bari waaye bàyyi mu ne bu kenn ñàkk a am gaali suuf yu bari ci joor bi ñu joor fii ëllëg. yu bari ci joor bi ñuy joor fii ëllëg. xam ko bëggee. xam bi ko bëggee waaye bu kenn nangu ñu joor ko te bokk na ci ñi bi ne dang te bokk rek. ndax bés yi dañuy wéy rek. yi dañuy wéy ci fàggu nag mu jëm ci yàlla. lépp la ci ñaal. looloo la ci ñeexal. lu mooy loolu rek perte la. lu mooy loolu perte la ci yow. ci tukki lañ nekk jëmaguñ fañ dëkk. ci tukki lañ ne jëmaguñ fañ dëkk. kuy tukki nag di jula. kuy tukki nag. di jula. di jula. di am bénéfice wala muy am perte. di am bénéfice mbaa ngay perte. ba muy àgg fa mu jëm. ba ba ngay àggee fa nga jëm. waaye ñiy dajale suuf si ëllëg daal loolu du nekk perte ci yow. waaye liy dajale suuf si ëllëg du doon mukk liy dafay perte ci tukki bi. Ibrahima Diop ñoo jàngalee rek. Ibrahima Diop ñoo jàngalee far bi. sëriñ Baye maa leen bind lettre boobu pour soppi seen jamiatu ansaar diin sëriñ Baye أو صغيرا رجلا أو امرأة إلا وينتسب إليها ويحمل بطاقتها وذلك مجاراة مع مقتضيات العصر الحاضر وأقترح أن تشكلوها على هذا المنوال التالي تكون في كل مدينة كبيرة شعبة واحدة أو عدة شعب حسب ما يرى الأحباب في تلك المدينة وتكون في كل قرية قاصية أو دانية شعبة وكل من هذه الشعب تنتخب مكتبا يتكون من رئيس ونائب أو أكثر وكاتب ومساعد أو أكثر وأمين للمالية ومساعد أو أكثر فشعبة كولخ مثلا يقودها أمثال السادة الحاج عثمان سيسي وإبراهيم كام وعليون سك وفينينغ ومن لف لفهم من السابقين الأولين وهكذا في كل مكان ثم إن هاتيك الشعب كلها تبعث مندوبيها لانتخاب هيئة عليا تهيمن على المنظمة وأقترح أن يكون رئيسها وأمينها من أهل هذا البلد مدينة ولهذه الهيئة العليا الهيمنة كذلك على كل ما يتعلق بأحوال الأحباب على صعيد المصلحة وكل سنة أو كل سنتين ينعقد مؤتمر عام يضم مندوبين عن سائر الشعب والفروع وعند انتهائه أي مؤتمر يعاد انتخاب الهيئة العليا وكذلك المكاتب الفرعية وأما الغرض إجمالا فهو خدمة الإسلام بنشر العلم وبناء المساجد والسهر على مهام الدعوة إلى الإسلام بشتى الوسائل والتعاون على البر والتقوى مع المسلمين في سائر أنحاء العالم وفقكم الله لما يحب ويرضى وداوى بمنه قلوبنا المرضى والسلام عليكم ورحمة الله إبراهيم ياس الكولخي لولو موي لاتر <laughs> munoon na ko ci ci loxo ñi nayoo sos li muy wax waaye bàyyi bind ko ci loxoom ñu tapé ko ci machine ci këyitam mu signé ko tamponné ko toog ñëpp toog ñu jàng ko ci kanamam mooy dog layu képp bu ko saggan ëllëg ci mbir mi loolu la ci jublu nee na mi ngi sant yàlla gannaaw bu mu santee ci bu gaaw gàtt noonu nee na lii bayaan la déclaration la lu muy siiwal la di ko waxee mbooleem soppe ak taalibe yi ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon di doxal mbooloo suñ mbootaay gi ñu naan jamiyatu ansaari diin ku ko ci xamul mooy mbooloo ma woon ci ku ko ci xamul mooy daayira ba woon ci kër maam laja ku ko ci xamul mooy daayira ba toogoon kër Kebe mooy jël turu ansaaru diin moo nekk ci biir nit ñi moom la bàyyi di santaane ci moom lii nee góor ak jigéen gannaaw bu mu leen nuyoo xormaa leen ñaanal ñëpp yàlla faj seeni soxla te jubal seeni xol nee na yéen soppe yi tur yu neex la ñu ndax nit ak kam sopp ñooy ànd fu mu jëm ñu jëm fu ñooy yëpp ci yéen ngeen yaatal seen mbooloo moomu ñuy ooyee ansaaru diin ansaaru diin mooy ñi nga xam ne ñoo féetewoo ñoom dimbale yàlla ci dimbale diine nee na na ngeen na ngeen na ngeen ëf fuuf ci biir jamiya boobu lu koy dekkil mu nekk dara lu dund di yëngu di dox di jëriñ loolu ku ko dégg xam ne wax dëgg liñ daan def am na solo waaye bàyyi lu gën a am solo la moo tax mu ne nañ ci ëf roxo bu koy dundal mu ne mooy ngeen nose ko beneen nose boo xam ne bu sew lay doon bu aw ci yoon nga xam ne du ngeen ci sàgganee dara lu mu ndaw ndaw ni ñuy nosee mbooloo yi rëy yi dox ne ci àddina bi na ba nga xam ne ku xam rek ñaata nit ñoo bokk ci ansaaru bii rek daldi xam ñaata nit ñooy taalibe yi bàyyi ko ba nga xam ne nee na benn benn taalibe benn laa wax nee bu mag walla bu ndaw góor wala jigéen du ci des mukk lu mooy askanu na adhéré na ci jamiya boobu amee carte boo xam ne turu jamiya ba ak chiaaru jamiya ba moo ci nekk chiaar ba bay nee na mooy ñun ñëpp ñuy wax ne nahnu ansaarullah chiaar def naa mooy devis mbooloo mu ne am nañ loo xam ne buñ ko waxee moom la ñuy xamante loolu mooy seen woy mu ne ñun ñëpp nag képp ku bokk insigne bi ngay takk lépp lu ñu am ëllëg buy tampon ak lu ñuy doxal ñu ngi koy bind nahnu ansaarullahi nahnu ansaarullahi buñ ko waxee fu mu ci mbooloo ku al nekk jàngkatu alxuraan firikatu alxuraan wala yàggkatu déglu alxuraan nga mooy ba nga xamee ne Isa ibnu Maryama yàlla yónni na ko ba moo amee woon fii mu xool ñëpp ne leen man ansaariya ila allah wax ko xawaari yu ne ñu ne ko nahnu ansaarullah ñun ñoo jóg pour takkaayu ànd ak yow dimbale yàlla dimbale yàlla mooy tax taxawal diine bi bàyyi nee na loolu muy suñ chiar ñun ñëpp nañuy wax ne nahnu ansaarullah jamiat ansaar diin seen chiar ëllëg mooy nahnu ansaarullah responsabilité la manam yéen bu diis la bu reey reey nak ndax wax ko te defo ko amul jël lépp lu fay defé xam nañ ko ndax li jël fi te yag ko fay jël kep ku ko xas jël loo defut yow la neex neena lolu bo jité mu santane ko mooy mujaaraatan ma muqtadayat al asri al xaadir dafay ànd ak yi nga xamne jamono ji tew mom la laaj ci mbir mu ne nga tëral ko fa mu war tëdd ndax lu nekk di dox te du am coono jamono ju nek am na yum laaj pas-pas yi duñu ñu ko mukk waye jëfëndiku yi ni ñuy jëfëndiko pour def li pas-pas ci laaj mom rek la nit ñu am solo ñi faral di soppi leg leg ndax mun na ànd ak jamono ji nee nak mi ngi mi ngi sàkku mi ngi proposer xamna lu ñu wax dañu ko def ne lim ñu sant nañ ko teurele ni nee dëkk bu nek bu de dëkk bu mag na am benn chubatu maanaam benn benn برانش

nañu am buñ ko xeeb nañ am benn bureau boo xam ne dañu naan kii mooy njiit bi président bi kii moo ci topp di ko dimbale su fi nekkul muy def lim daan def kii luñ ciy bind di ko takk moo koy bind kii moo koy dimbale su sonnee wala bu fi nekkul kii moom lañuy ñu dénk lépp luñ ci dajale ci xaalis kii moo koy uutu wala moo koy dimbale lu bureau ndaw ndaw lu dëkk ndaw ndaw bu dee ñaari dëkk ñaari kër sax nee na nañ fa def bureau boobu nee na nag boo dëkk bu ci nekk ci façon bu gaaw doxal nañ loolu ñooñu ñëpp nag ku ci nekk na nga yónni ay nit ci bés ba nga xam ne danañ ko wax yi buñ ci eggee ñu daje daje bu mag nag dal di fal loo xam ne bàyyi ko tuddee ci xalimbaam hay'atun ulya hay'atun ulya mooy nañ ko tuddee conseil supérieur mbooloo moo xam ne moo fare kaw nag yu ndawu ndawaan yooyu yëpp ñu doon dajale mbooloo moom nag moo nekk ca kaw nag coiffé ko tiim ko amee ko nee na mbooloo moom nag dafay de tëb mu ne mu ne ni mu bëgg ñu sosee mu ne masalan ci kaw la ku mel ni sang yi ñuy wax El Hadj Ousmane Cissé te fi nekk nii mooy président Jamiyatou Ansaaridine ku ñuy wax euh, député Ibrahima Thiam ku ñuy wax Alioune Seck xam ngeen ko fi njing nee na woo man la falit fahum ak képp koo xam ne ni ñoom nga demee ñu ne sabiqiina al-awwaliina ci ñi nga xam ne bu yàgg lañ jóg waaye ko wax nee na ñooñu ñooy jiite kaw la na bu ñëpp dajee nag formé benn kii bu mag nag bàyyi nee na daal mi ngi sàkku euh, président wu lu mag loola ak secrétaire ba jógee ci dëkk bii lu tax ndax ñi fi nekk ñëpp sawar war ko doxal gis na ne danañ ko mën a féetewoo guddeeg bëccëg parce que duñu xëy ci fonction duñu ci gont nee na noonu lañuy def nag ci dëkk bu nekk nee na mbooloo moomu bu ñu dajee bureau bu mag boobu ñuy tànn nee na lépp lu aju ci biram soppe yi ci mbiram masla ñoom ñoo ci amee baat bu koy nee na nag mi ngi sàkku at mu jot mbooloo yooyu yëpp yebal seeni délégué déglu leen bu baax de ñëpp daje fa ñu wax ne fa la ñuy daje def fa congrès la wax muktamar seet at mi passé ñun soppe yi ñun taalibe yi lan lañ ci lu ñu fi def ci lu luñ fi def ci mbiram njàng luñ fi def ci mbiram ah, mbiram jokkoog bitim réew ak biiram réew ci mbiram lislaam dong luñ fi def ci taxawal diine luñ fi def ci ci fecc ay lëjlis luñ fi def ci jubale nit ñoo xam ne dañu ŋaayowoon luñ fi def ci suñu warigal ci réew mi lu ci yàqu lu ci baax lu koy gën a yaatal ñu daje seet ko ba mu pare ñu ne lii lañuy defaat teeg déwén mu ne buñ ko jógee falaat bureau bu mag bañ faloon wala ñu beesal ña ci nekkoon dëkk bu ndaw bu dellu itam falaat wala nga beesal ña nga amee woon lii la bàyyi wax nee na nag luñ ci jublu nee na buñ koy gàttal daal mooy gën a yombal liggéeyal diini ji ci nose ko ku nekk jàpp foo jàpp ñu puus mu dem ci tasaare xam-xam tasaare xam-xam mooy nee na jéem a tabax ay jàngu nit ñu nekk kenn du am lay boo buggee jàng gis ku la jàngal te féetewoo ko te jàngale ji métier di tabax nee ay jàkk gox bu nekk guñ bëggee jàkk ñu xam nuñ cey dimbalante fii ci biitam réew ak na ak oote jëme yu bari wasila yu di ootee wax ñi ci lislaam naka la ñuy def nee na ak dimbalanteeg jullit ñi nekk ci mbooleem gox addina bi su ko bàyyi waxee am na am na lu diis lu muy peese fii ndax moom mii toog gannaaw li nekk fii ci réew mi ak li ngeen xam ci Nigéria ak gànnaak réew yi ci Afrique yëpp ba fanweeri réewu jullit ak juróom-ñaar daje daaw ca Bagdad def congrès boo xam ne mbooloo muñ sosoon boobu léegi jéggi na fanweeri at bañ dajee di gëstu euh, ay bés seet lañ daan def ak lu ñuy defi bañ soxlaa président bu taxutoon a gu rus góor gu baax da ko jiite woon gu yàgg ba tey tey magat xam nañ lu ñuy def waaye nag bañ mënta teppi loola ñu seet seet seet fekk baa ngi fii ci kaw la ñu ne daal nañ ko def daal kon président bi niyaaba bay nekk président wu mbooloo moomu fanweeri euh, fanweeri nguuri jullit ak juróom-ñaar bokk hmm. chaise baa nga ca Karachi président ba nga ca Beyrouth moom mi ngi fii lépp lu ci aju ci Afrique noire moom lañ koy laaj su ko waxee am na lu diis lu mu peese ndaxte ba jullit ñëpp dajee daaw ca Makka xaw ma ñaata délégué lañu waaye bari nañ lool penku xarfu ndax aj la woon ba ñu dajee seet seet seet lu ñuy def dañu créé lu ñuy wax rabitatul alamin islam yi buum gi war a takkee mboolem jullit ñi lu mu yàgg-yàgg ba ñu mujj sos seen benn ligue boo xam ne ñëpp ci bokk dañ seet seet fekk bàyyi nga ca Nigéria gannaaw bu mu ajee ñu ne daal nañ ko boolee ci euh, fukki nit ak juróom benn ñi nga xam ne lépp lu ñu doxal ci alamul islam yi ci biir rabita bi moom rek mooy dox daaw dañ aje ba pare lañ fa liggéey yëpp wax dëgg yàlla boo ci dindee point yu tuuti ca rapport ba mu joxe woon ci la ñu ko génnee def ko muy ay xaraara ay résolution ay la ñuy doxal. ñu ngi jógee ci île de Saloum ñu gën koo xam ci euh, bu ko defee nag ñun ñoomin ko yëpp ñëw nañ ci ñetti communes yoo xam ne dañ fasante ko commune na ak Bassoul ak euh, Dionewar ñëw nañ nag fii ci Medina Baye ndax xam nañ ne taalube amul lu gën a fort xidmaal sëriñam ci xidma sa sëriñ ki nga mën a jëriñoo te taalube duñ koy tibal dañ koy sotte kon ñu ngi ñaan yàlla li ndamu mbooleem taalube la ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla saxal lii ci barke baay ak baayam ci barke allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam ñi taxaw ni nag waa Bawut waa jam ñaajo ñun ñoo ñoo gëm président Bawut a ngi fi macha allah ak ñu jógee jam eh, eh, ñaajo Babacar bi jógee jam ñaajo yëpp ñu taxaw ni ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla yokku ci barke baay ak baayam wax na jërëjëf ma continuer waaw bu ko defee rek eh, jóge nañ ci île bi rek ci li nga xam ne li ma dama koy waxee toujours bàyyi mi nga xam ne moom moo ñu nampal loo xam ne toujours dañ koy gàll mooy daf ñu nampal yàlla bugg yàlla ak bugg yàlla ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñun ñoomin kay la may wax toujours la bàyyi waxoon rek bàyyi dafa ne eh, yonent bi moo ko jommal waaye ñun bàyyi moom moo ñu jommal moo tax mu ñun foo fépp foo xam ne bàyyi woote na fa rek ñun ñoomin kay ndax xam nañ li ñu bàyyi defal ndax sëriñ dafa am fu mu lay jëlee ak fu mu lay yóbbu ñun ñoom it kenn xam nañ fi ñuy bàyyi jëlee ak fu ñuy yóbbu ndax amoon na jamono rafle woon nañ sax ci ay néeg ci ay lépp waaye ci barke baay bi tey dëkk boo dem tey ay état sang fa ay terrasse sang fa waaye li ma doon wax itam amoon na jamono pour nga ne taalibe Baay laa rek ah da ngay da ngay daal di làqatu waaye ba Baay ñëwee jam ñaajo 1963 fanaan foofu dem jënd wax ne nokki bii ma nokki jamono ngi ñëw ñëpp nañ ko gis nokki boobu tey ñëpp gis nañ ko fépp di ci il bi foo dugg rek foo dee bàyyi di nga dégg la ñas loolu nag wéyam la wa anil ni ya rabbi min bahri taaha faydatan suma faydatan bi tawaali wasalaamualeykum wa rahmatullah waaw ah, oustaz Tamsir Saaj bu ko defee rek eh, munu maa jàll nag te zikaru ma zikaru séeréer sadaratim joxam jegaama soowetaas en refa bay baraama baraama leer laaman soobunaan برا ما صدرت جوخام جيغا ما سويتاس تندفع باي برا ما برا ما إيانا يدوانغا إي أندا كتل أي إنا بركي باي برا ما barama masina khinanga i anda ketelaina na barke bay barama amalela barama allah ya allah ala allah ya allah فاتبوا غابا يا الله على الله يا الله فاتبوا غابا يا الله على الله يا الله يا الله على الله يا الله dañoo dégg si kese bi bu ñuy méttale bay wax ne baraxam baraxam bi ñu ci ba suuf bàyyi nes ñu tabax jumaa ji ku nekk sa yéene mooy tudd barxam waaye ku tudd barxam te fekkee jamono jooju sa yéene moo doon nga fekkee jamono jooju ñu déggaat ci cachet bi ne bu nawet jotaan taal bi bàyyi ñaari groupe la ñu doon ñii kër ayre la ñu jëm da tay ba ñeseen ñii dem taalang tool baay ji ci kóos ku nekk sa yéene mooy doon bu boobaa fekk jooju jamono nga dem kóosu wala nga dem kër ayre ga ca tay ba jamono du dox jamono du dox jamono du dox ba ki nga xamante ne moo di xaadimul umma di sëñ Mouhamadul Mahi ibnu Cheikh al Islam mais yéen ñi nga xam ne da ngeen amoon min fee fekkee barxaam barxaam doon tudd suuf ngir jumaat ji kaay la ma tuddee la yéen ñëpp barxaam ñun ñi nga xam ne da ngeen amoon yéene ñun ñi nga xam ne da ngeen amoon yéene fekkee demam tool ma ca kër aayra ca Taïba kaay la ma wan la yoonu tool yi yéen ñëpp yéen ñu bëggoon a fekkee koos yi kaay la ma yóbbu leen koos yi mooy lan mooy kaay la ñu sumb yeesal capitalu xëy tijaaniya comme ni ñu def baa lañ koy defal xabaar yi du ñu tu saahir xabaar ñu ko propagandal nañ fi Bakar Baay jóg néegam bi ko esplanade bi nga xam ne fi la doon tàggee yonent bi sallallahu alayhi wa lu tax Baay moo wax ne jéem maa dab ci bëgg yonent bi mu ku ko ku ko jéem mu ngi mel ni bëgg a delloo si démb te delloo si démb nga xam ne ne moxaal la lu jomb la Sénégal yëpp wala adduna bi yëpp ba mu daj ñii dañu gàmm duñ gàmmuwaat ñii gàmmuwaat kes luñ gàmm gu mag waaye moom day gàmm di gàmmuwaat lu tax coofeel fi yonent bi moo toll loolu xaarimul umma ne kaay leen ñu tàmbalee ci bàyyi dimbale ko ci soppeem bi fi mu ko daan màggalee ba noppi leneen yu ciy teg ñu soog ko ciy teg jël naa bi ubbi naa assance dénk ko ko léegi na ci taalibe bàyyi yëpp dugg assance tey ñun ñëpp ay baraam baraam la tey ci ban suuf ci jumaa ma bàyyi noonu Seydina waxal leen ne dal bi na gën a kawe lii ah. buñ ci bokkee dina kawe buñ ci bokk dina kawe ñëpp xëy bokku ci tey ñun ñëpp ay ay barxaam lañ moo tax ñu ngi ñaanal ummati mi nga xam ne moo ñuy fexeel pexe mu rëy nii nga xam ne tey nii dimanche la ci néewtoon ci lii ñu ngi ci lu soof ndax demuñ service demuñ dara ñu ngi ci tiktok rek wala ci estat yàlla nag dimbale ñu daare la ko ci xaadimul ummati mu may ñu ñu ñëw fekkee bis bii fekkee jëf ji dikk liggéey mu mel ni liggéey fekk liggéey ñu ndax ñun lépp luy am ci àdduna bàyyi na si du ñu dara suñu àll wa soriwul suñu at bariwul te ngi lay tudd lu tax loolu parce que bàyyi na cheikhul islam moo tax lah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala cheikh aboubacar maa ngi lay nuyu di jël ci yow yow cheikh mohamad tey bisab sant yàlla tey bisab yokkate la tey bisab ndollal la bis bii nii waa alaaxira yi sa yu nga xam ne dañoo liggéey ñaan ñu neewoon fi tey mën a yokk liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim sant yàlla waate ba muy nuyu alxalifu maasam xaadimuhumma da ngay xalifa bu nekk sa mbir ngee tombeek xaadimuhumma ni wax man ba mu ñëwee dafa woon du xalifa xaadimuhumma la wax day leen xool waxi doomi Mawlana nga xam ne ñoom duñ duñ duñ waxee seen laamin laamin moo laa naa chamane waye bu ne xaadimu umma premier feeb bu mën a am mu mu taxawee ko dëgg dëgg loolu bu bu rëy la ñu ngi nuyu imam Cheikh Yaali Cissé suñ ko nuyoo danee nuyu wakkati dax bi Cheikh Mohamed Amin kon ñu ko ñaanee yal ko yàlla may wér bam teewaat ci man sa bi ñu gën a gaawee ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim ba àdduna daj doo doo gisati mukk suñu liggéey tante Mawlana euh, moom tante suñu tante liggéeyam teew na fa di koy kuule loolu xamu ko ci jamono ci way njëkk way mujj suñu kuulee gis nañ fi kuule juma gis nañ fi kuule euh, école gis nañ fi lu ne waaw kuule suñu tante liggéeyam teew na fa laay fanaan ko ba mu màgg doo ko jëfee fii rek nga koy jëfee kooku Mawlana Cheikh Ibrahim la ko yàlla may moo moo moom la yàlla may mu gàmmu gàmmuwaat màggal judd gi yaa ngi dégg mu desuwaat mu màggalaat. ngénteli sant yàlla kon dëgg dëgg tey Cheba bi fu xëy mi tey toll tey Cheba bi bu ñëwee fii di kër kër di liggéey am na ñoo xam ñu di yàq di sànni ay xeer di def lu ne tey ñu dëgg dëgg lii rek bu ci dara newtoon moom mu rëy rëy rek mu ci ñu ngi sant yàlla bu baax Mawlana Cheikh Ibrahim nag yàlla moo ko déglee lii wéraasam ci yonentu yàlla moom sallallahu alayhi wasallam dafa wér dafa wér parce que ba ñëm ñëwee wàllu yàlla njëkk ñaan yàlla yaa di bëtt géej yi di montagne yi di ci jëw moom mu ñaan yàlla Alxuraan nekk karamaam alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne démb bay tay rek euh, ndax liggéeyal liggéeyal bàyyi amul amul tay ak démb ndax moom dafa waxoon naalal mun naa man xataataani awala wa axiran yaa axiran yaa awala ñu ñëwoon ku ma liggéeyaloon démb ak ku ma liggéeyal tay yëpp benn lañ ndax axiro awalu yëpp benn lañ kon inna lazina xadamu ni naalu muraadahum saadatan wa maalu kon yéen ñi nga xam ne yàlla baaxee na leen ba ngeen ñëw ci liggéey baay bi dëgg-dëgg yéen mel ni ña nga xam ne ñoo ñoo nekkoon caalan ak ña nekkoon kër xayre waaye maa ngi fàttaliku benn bés fii ci mbaar mii baay oote ñu ñi dem ñu jëm jëm risaato daf ne yéen xale yi mag ñi wàcc nañ ba alaaj baabu jaañ moo buur bëgg mu ne ko déet alaaj baabu jaañ wàccal yéen mag ñi wàcc ngeen tey jii maa ngi xamal ne képp ku fi liggéey ci eh, ku dem Richard Toll rek dem nga Bator kon liggéey bi itam noonu la ndax Baye moo eh, eh, place bi moo gën a màgg Bator ndax mooy place bi nga xam ne fi la Baye daan toog di tëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba benn gàmmu nee nañu yonent bi toog na fi nekkee na fi noo xam ne mosu ko fee nekkee ko foo xam ne yonent bi dafa daan teew képp ku ko liggéeyal liggéeyal nga yonent bi wa sallam kon ñu ngi ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi fiy ñu ngi ndokkeel xalifa dëkk bi ñu ndokkeel imaam dëkk bi ñu ngi ndokkeel mboolem kilifaay dëkk bi waaye nag ñu ngi ndokkeel président Baye Ciss mi nga xam ne moom lañ óolu ba jox ko ba jox ko liggéey bi waaye itam mboolem muqaddam i taalibe yi kuñ mën a nekk waa waa waa waa waa Kër Madiabel waa Taïba waa Kaffrine waa Ndofane waa waa waa waa waa Ndoyen waa waa Ndiobène Walo waa waa waa waa waa waa Sénégal yëpp bi yëpp ñu leen ndokkeel ndax lii ku ko gis rek xam nga ne nit ñi buur na jëm si ci baay pour liggéeyal baay kon nag ku nekk na na fexe rek ba nga xam ne bés bu buñ na góorgóorlu ñu ngi gërëm média bi itam ñu ngi leen di gërëm ndax euh, lépp lu nit ñi yëg rek yéen la yàlla yàlla dimbale leen maa ngi gis soppe ba nga xam ne Oustaz Thiam mi nga xam ne ñoom moom la woon ci ci kër sëñ bu ñu maa ko séen ne yal na yàlla dimbale ñëpp yal na yàlla wattu leen gàmm leen ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum ilo amaam ilo amaam waaw ndaw yi daal li ma leen di wax mooy ne ña liggéeyaloon yàlla ba am bu ko aw ci seen yoon wi da am lañ am waaye bu leen topp ñi nga xam ne dañoo ne ci mbedd mi di yàq liggéeyal wàllu rek am li wàllu bi di séddale waaye bëgg àddina ba tax nga topp di di di di wax ak yàq loolu du maye dara nag ñëw leen ci liggéeyal wal yu wàll yu mag bi nag mooy bàyyi ndax moom mu ne moom mu ne yonent bi mooy buntab yàlla jaam bu xeebu bii mooy buntab yonent bi ku dikkal yonent bi sa yàlla su moom doo doo jëriñu kon nag ñu ñëpp tey dikkal nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñoo nañ ci buntab baay bi ñoo nañ ci baay baay bi nga xam ne buntab buntab kon ñu ngi leen di ñu ngi wax ilal imaam ilal amaam ñu nekk leen fën di rek gis nañ ko waaye nag dëgg dëgg daa ndo daa ndokkeel waa kër Baye Ibrahima Fall ndax ñoom ñoo ñoo pousse ñoo pousse affaire bi ñun ñëpp yëg ko taa mu mu Baye Baye wax ci dog bi ne ko Baye Fall ñu ngi leen di xaar ñun andi nañ jiwu kër kër Serigne Baye andi nañ jiwu ji nañ ko daa bëgg ngóob mi mu yéen ngóob maa ànd ak yow mag bi nga xam ne yow lañ ko ak lañ nga jiite ko te yéen kàddu nga jëmal ci aussi bi mbooloo mi aussi liggéey voilà ay kàddu kontaan ak ngërmande yombul woote ñu uysi la mu mel ni gàmmu mu mel ni gàmmu rek nekk tey euh, loolu sant yàlla euh, yombul waaye nag di ci sant e, Maolana Cheikh al Islam nga xam e, e, ne lii yëpp moom la lii fi tuuri nii yëpp tey ci barkeem ñëw di def xidma wu rek moo leen fi indi waaw ñun suñu àddina suñu lépp bàññeek ñii fi nekk nii yëpp seen lépp bàyyi na moo tax ñu ñëw tey ñoom ñëpp kenn mënul leen canaliser waaw donc daal sant yàlla rek sant yàlla rek. Cheikh soo wéeroo fu du wér wéeru ci Cheikh al Islam Baye Niass ñooñu bàyyi fi mel ni imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé sama sëriñ waaye fi xalif bu mag bu vision di Cheikh di xaadimal umma Cheikh Maye Niass ci ñooñu amoo looy tiit wax di nga xam ne ñooñu loo song rek ñu daana moo ñu indi fii tey lii suñ ko kulee day des ci histoire te bâtiment bu jar milliard nangam kule nañ ko quatre mois xaw ma cinq mois. Mm-hmm. architecte bi defar plan yi sax dafay yëngu waaw waaw. Euh, euh, ce que ñu ngi xaar tamit buy lii di pare rek ñu dugg ci liggéey bu mag bi ñëpp di xaar. waaw xam nga Baye Niass euh, gëmul woon dara du dul yonent bi. moo tax bi ñuy commencé Cheikh May ak Imam Cheikh ñu oo comme Baye Niass dafa yitte woon yonent bi ak gàmmam bi defaral ko place bi ba pare soo ko julli ci jumaa ji jumaa ñëpp a ngi koy defar am nañ fuñ jullee waaye fii nga xam ne fa lay ñuy tàggee yonent bi nga defar ko ba pare boo paree soog a song jumaa ji donc noonu la demee. Euh, sabab bi dina bi tam gis nañ doomu xalifa baa ngi ni gis nañ ñaar yéen ànd tukki. waaw waaw nañ ne loolu yëpp rek ci lu aju waaw loolu yëpp Londres lañ demoon. ci mission xalif bi ñu demoon ci ay waxtaan yoo xam ne lépp ci Medina la jëm lépp ci Medina Baye la lépp ci euh, euh, liggéeyal pays bi rek moo tax ñuy tukki tukki yooyu di topp tànku donc topp tànku suma turandoo euh, yàlla def bañ fa yeggee tomboog jour ba nga xam ne nii ci la génnee àddina ñu dem ba ci hôpital bi ñu tuddee Saint Thomas daal di dem foofu ziyaare ji ko macha allah boo amoon appel nga def jëmale waaw lii liggéeyu Baye la du liggéeyu Baye Ciss du liggéeyu du Cheikh Mahi du liggéeyu la liggéeyu yàlla la liggéeyu yonent bi la lu fi nit def te muy dooleem te muy xaalisam wala mu lu mu nekk loo xam ne nii def na ko ci defaloo ko kenn ku dul boppam fii doo ko def sa bopp nga ko defal lii ngay def soo demee fekk ko fa lii ngay def sa alal soo demee fekk ko fa waaw donc ñëpp dinañ ñëw ndaxte lislaam gi benn la bi dafa neex climat bi dafa neex lol climat bi dafa neex lol and ak xidma bo xamanteni si talibé yi ñew nañ à masse climat ba ngi neex climat bi dafa neex barki Ibrahim talibé yi ñew nañ masse climat bi ngi feex taalibe yaa ngi liggéey ñi ngi yanu di andi circulation bi mi ngi neex wax dëgg fa yàlla en direct fii ci Medina Baye live Koulas Esplanade Mawlid Nabi bi gis ngeen ko public bi dafa fees dell dell dell parler, talibé yépp ñëw na li ci gën a doy waar nag mooy climat bi dafa neex wallahi azim ndox maa ngi circulé gaay ñi ngi yenu di andi direct fii si Medina Baye jumaa jaa ngi nii Mawlid se Mawlid Mawlid place Esplanade Mawlid Nabi bi jumaa baa ngi nii wax dëgg fa yàlla fees na tepp Medina fees na teeb sànq ba tey circulation bi gis ngeen ko dafa xat fii dafa xat fii nii tey dafa xat mënoo fee sur mënoo fee di circuler nu mu la neexee ndax xat boo wàccee pour nga dem day difficile ndax koo gis mi ngi yanu te fi li ñu yanu ay suuf la ciment la ndox la yéen a ngi dégg wax dëgg fa yàlla taalibe yi wuy si nañ appel bi camion yi duñ mën a agsi camion yi yanu yanu mool yi duñ mën a agsi ndax xat xoolal nit ñi ci kaw instant yi taalibe yaa ngi nii ci kaw ñoom ñooy gérer wàllum coulage bi ci kaw yéen a koy gis ñoom ñoo gérer wàllum coulage bi nii ci kaw ñoom ñoo ngi nii ñoo gérer wàllum coulage bi nii ci kaw gis ngeen gars yi ñu ngi nii di indi dafa fees dell Médina dafa fees dell dell dell del gis ngeen ko noonu si Médina Baye en direct nga koy am ci coulage esplanade Mawlid Nabi bi Masya Allah mi ngi am jamu naisan, ñëpp dinanya am jamu. ndax wax dëgg fa yàlla dañoo wuyu si woote Maulana Cheikh Ibrahim fii si Medina Maulana Cheikh Ibrahim ñi nga xam ñu amal coulage bi nga xamante ni su paree rek ah macha allah sant yàlla lay doon macha allah Medina mi ngi neex wallahi climat bi car macha allah gaa yaa ngi ci liggéey bi sincèrement parle daal sant yàlla quoi. Allah Akbar isengen ko ni ah masya Allah Medina Andre Divisi Medina Maulana Sebrahim Ibrahim gis ni nyingi yanu ay paanu ndox di andi jigéen ni nyingi yanu ay paanu ndox di andi xale yanu ay paanu suuf di andi pay ñi ngi andi yaay boy ñi ngi andi ñepp ñi ngi japp ci liggey bi amul kenn ku amul kenn ku des medina dafa fess neena la ba fu sa yam ay nit ñang fay di yanu di andi la andi lepp nak fi lañ koy andi ci lan coulage maulana euh, esplanade bi nga xamanteni ni ci la gaay nekk kon gaay ñi ngi kuule yàlla ndeysaan xel mi moo ngi fi xel mi moo ngi fi wax dëgg fa yàlla neex na trop tey moom xaal bi dafa neex lool lool lool koo gis rek mag ndaw xale wallaahi mi ngi summeeku di liggéey moo tax ma ne lii moom chaque jour dafa waroon di am waaw Médina mi ngi neex dafa fees dell dafa fees dell gis ngeen ko suñu mbokk caméraman yi sax ñu ngi ci kaw terrasse yi gis ngeen ko di jël spectacle bi am fii nii ci Medina bàyyi kon tey foo sànni mbàtt mu tàkk wax dëgg fa yàlla nit ñi moom dañoo maroon xidma lii moom tey ñëpp ay maçon lañ ñëpp ay maçon Maolana Cheikh Ibrahim lañ ñëpp ay maçon Maolana Cheikh lañ ñëpp ñu ngi leen bàyyi ku ci nekk ak l'esprit tranquille aayewuñu kenn ku ci nekk yaa ngi liggéey buuxuñu kenn waxuñu kenn toppal wax deug fa yalla dal kenn nekku ci ak stress ñepp ñi ngi ci mbekté wax deug fa yalla Medina bay neex na lol lol lol lol lol lol gis ngeen ko ci kaw tante ba ngi ni xaaral ñu ñu wan leen tante bi fi ñuy kuule gis ngeen ko fi ñuy kuule mi ngi ni noonu dafu baay mi ngi noonu moom la ñuy wax dafu baay gis nga taalibe yi wallaahi doo leen sax xàmmee dañoo xidma gis nga leen xool leen ni ñuy pasante soo yi gis ngeen ko kii mi ngi nii ci seddulum ndox mi mi ngi ci seddulum ndox mi gis ngeen ko ma yaa rabbi ziyaara mu ne ziyaara mu ziyaada ñoo ñoo tolloonte moom ziyaada ñoo tolloonte ziyaada mooy dolleeku ziyaada nag mooy dolleeku sarafi nga muy ziyaada ak cang buñ ko soppalee mën naa nekk ak cang mu ne buñ ko soppalee mën naa nekk ak cang yàlla may dolleeku yàlla ñu yàlla may dolleeku yaa rabbi ak càng rek. yàlla ñu yàlla may ak càng yaa rabbi. seen jamono ci àddina ak àllaaxira. ci seen jamono ak ci àddina ak ci àllaaxira yaa rabbi. yàlla barkeel lépp lu leen jox. yàlla yàlla barkeel lépp lu ñu jox yaa rabbi. yàlla yàlla barkeel seen jëmm. yàlla yàlla barkeel seen jëmm yaa rabbi. barkeel seen liggéey. yàlla yàlla barkeel seen liggéey yaa rabbi. barkeel seen njaboot. yàlla yàlla barkeel seen njaboot yaa rabbi. barkeel lépp lu leen yàlla jox. yàlla yàlla barkeel lépp lu ñu jox yaa rabbi. barke rek moo ma ta sàkku. barke rek moo ma ta sàkku. barke rek a takku. ndax barke rek moo di li takku. lëf lu mu bari lu mu bari bari. lëf lu mu bari bari bari. bu ca barke wàccut. bu ca barke wàccut. du dara. du dara. lu tuuti tuuti. lu lëf tuuti tuuti. su ca barke wàccee. su ca barke wàccee. loola moo am solo. loola la moo am solo. naa leen ci jox misaal. mu ne nag danañu ci jox misaal. yonent na yàlla ba mu bindee yëf yëpp. yonent wax na ne yàlla bi mu bindee yëf yëpp. dafa def barke ci mbay ak ci jur gi. dafa def barke ci mbay ak ci jur gi. mbay mbay nag moom ci àddina ci àddina réew yi bay réew yi bay ñoo gën a néew ñoo gën a néew réew yi bay réew yi bay ña cay bay ñoo gën a néew ña cay bay ñoo gën a néew ñii bay itam ñii bay itam jamono yi ñuy bay moo gën a néew jamono ya ñuy bay moo gën a néew ci seen jamono masalan fii ci suñu réew masalan fii nag ci suñu réew mii ñetti weer rek moo fi nawet xam ngeen na ñetti weer moo fi nawet bu jotee ci la baykat yi bay ca la baykat yi bay lépp. bu fukk di bay téeméer a nga tëdd. su fukk nekkee ca la bay bay téeméer ci kër gi tëdd. ñuy bay itam du bés ñëpp la ñuy bay. te ñuy baykat doon na bés bu nekk la ñuy bay. xam nga ne liggéeykat yëpp mboolem métier yëpp. xam ngeen ne mboolem liggéeykat yi métti yëpp. dañuy xëy six heures di wàcc midi. fokk ñuy xëy six heures di wàcc midi di gont. di dellu deux heures di wàcc six heures. baykat bi di gont deux heures di wàcc six heures. bët bu set. bët bu set. baykat bi def loolu. xam ngeen ne baykat moom du def loolu. du bés yëpp lay bay. moom dawul ne bés yëpp lay bay. bés yi muy bay du bay bés bi yëpp. bés yi muy bay du bay bés bépp. te ñetti weer rek la motul sulu si at mi. te ñetti weer rek la motul genn wàllu at mi. motul ñetteelu at mi sax. mënul ñetteelu at mi. te loo tiim di ko lekk seetal rek lim béy na ko. ba dina daj. ba dina daj. loolu su ci barke wàcc noonu du mën a am. loolu bu ci barke wàcc toon du mën a am. jur gi itam. jur gi itam. mooy béy yi ak xar yi. mooy béy yi ak xar yi. ak nag yi. ak nag yi. xaj. xaj. gar. gar. ba ci muus. ba ci muus yi. rabi àll yëpp. ak rabi àll yëpp. juróom benn weer yi dañuy jur doom. juróom benn weer yi nekk ñu jur ñoom. juróom benn juróom ñetti doom la ñuy jurandoo ba tey jur bu juróom ñetti doom la ñuy jurandoo. kenn du soxla ba rey te xam ngeen ne moos kenn du soxla ba rey xaj mbaa jaay ci. kenn du soxla jaay ci ñoom. kenn du te kenn du dox gis seen gët. bële xar. bële xar nag. ak nag ak nag. bët bu set ñoom la ñuy rendi. bët bu set ñoom la ñuy rendi. ku soxla ñoom ngay jaay. képp ku soxla jaay ci ñoom. yàpp woo lekk ci ñoom la jógee. yàpp woo lekk ci ñoom la bàyyi ko. foo dox ko seen gët. te foo dox nag daje seen gët. xam ngeen ne bu taxu doon barke yi fii du mën a tëjee noonu. kon barke rek am solo yàlla. kon kay yàlla barke rek am solo yàlla ñu yàlla may barke yàlla. yàlla may barke. yàlla ñu yàlla may barke. lépp lu ngeen liggéey yàlla barke. lépp lu ñu liggéey yàlla barke. lépp lu ñu yàlla may yàlla barke. lépp lu ñu yàlla may yàlla barke. سني دوم يلا بركة سني يلا بركة سني سوف سندق يب يلا بركة يا يلا يلا برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينا